lépp tàq Adji Sarr moo nekkoon ki nga xamante ne moo jiiñoon Ousmane Sonko viol ak menace de moo tey ñu tàmm ni à chaque fois bu ñëw usmaan Sonko rek Adji Sarr génn ci wet gi bës la wala du bës jimboori waa xam nga tey Adji Sarr mus mhm. naa leen wax fii bu yàgg ne leen Adji Sarr yéen réseaux sociaux bi di ngeen dem ba jot ci dëgg la mus naa ko wax maa ko njëkk a wax mhm. xam nga lu tax mhm. Adji Sarr xam nga bës moo moo koy dundal moom bës la bëgg Adji Sarr si boppam. Mhm. ba pare ma wax la dara Adji Sarr lii muy def nii li muy def nii. Mhm. soo ko bàyyee xelum boppam est-ce que dina ko def. Ndimbour Adji Sarr nee na euh, viol la waxoon acte bi ci boppam moo ko metti te boobu ba tey Adji Sarr dafa yor location di ko fay amatul lu mu fayee location bañ koy génnee. mais Adji Sarr si biti la jóge woon dugg ci dugg. waaw fi mu doon dugg noonu dugalu fa boppam. dëgg la ñi ko fa dugaloon anañu. aji saar musu xol barke rasulullah boo demee laaj boroom kër gi mhm. du aji saar a ko jox avance mhm. wala aji saar bu ko joxee avance avance bi du du lu mu ñàq mun naa giñ ci kaamil ne mhm. boo laajtee boroom kër gi nga ne ko kan moo la jox avance keneen a ko jox avance mu aji saar dugg wala aji saar bu ko joxee avance bi laajal aji saar ba xam avance bi bi mu joxe lu mu ñàq la ku ñaqul est-ce que est-ce que mën nga dëkk ci ci kër gu lix di continuer neel aji saar moom ñaqul liggéeyul deful dara si li mu doon nekk kooku li mu fay gi mu am mm-hmm. xam nga tey ma wax la benn affaire mm-hmm. tey xoola bu aji saar même bu nekkoon ci dëgg dafa tolloon fu xam ne mën a libeere askan bi te libéré wu leen xoola am na fi réew mi tolloon mm-hmm. est-ce xam nga aji saar mos na yore réew mi xam nga fi mu yoree woon réew mi. Mm-hmm. fi mu fi fi fi bopp nit ñëpp jaxasoo ñu ne dañuy xaar Adji Sarr. mars 2021. waaw. Mm-hmm. ñu ne dañuy xaar Adji Sarr. Mm-hmm. booba Adji Sarr bu génnoon leeral dëgg. mais génn waaw xaara xaara <laughs> non Adji dafa génn na ne dafa ëmb. dafa non xaara Adji dafa génn dëggali fen. d'accord yaa ngi dégg. aji saar man wax naa la bu yàgg ne la aji saar si boppam xoola man totaale naa ko fii bu yàgg ne leen aji saar si boppam man bu ma koy xayma xam nga mooy loolu daal bugguma ci delluwaat mais dama ne aji saar si boppam képp kuy liggéey kooku moo mu kuy liggéey mooy dëkk ci kër jàmbur képp ku liggéeyul dañ lay génne ci biti léegi lii muy def nii bu ko defee ba nit yërëm ko ñëw fayal ko location bi est-ce que kooku dina dina continuer di ko fay fa pare ma wax la dara Adji Sarr bi muy am problème ak Ousmane sonk di ñëw. ñi ñi doon def seede yi. Mhm. da ngay dégg kii naan la sama kër la ne woon kii naan benn pantere la ne woon kii naan nekkoon na ci salon bi di fa fanaan. Mhm. mosoo dégg ñu ne la Adji Sarr fii la luyee di ko fayal boppam. fi mu jóge la dellu Adji Sarr lu pourquoi mu ciy xaru su bëggee fay location na génn dem liggéey yi yaa ngi dégg. Mhm. te xoola moom da doon wut ku mu tëjlu du dégg. xanaa am loo kaso bi gën a garaaw ah Adji Sarr moo ko am. Mhm. xam nga mooy lan. kenn téyewu la kenn tënku la te ñemewoo génn. bu doon li mu nekk dëgg la day génn ba pare ma wax la dara. Mhm. nit bu la defee lum la war def dalay ragal. pourquoi moom mu ragal askan bi pourquoi Sonko ñeme askan bi. Mhm. am na wala amut loolu la. Adji Sarr buzz koy dundal yi muy def ni est-ce que am problème mu xel ndax Gabriel kan jamono yeewu ñu weesu génnoon na xam na ne Adji Sarr dafa commencé am ay dépression est ne ko loolu moo tax muy taal boppam. non xam nga waxi Gabriel kan. Mhm. kenn du ko wax. non ndax Gabriel kan kañ la ñu wax ne Adji Sarr dafa am problème mu xel. yàggul bi mu doon doog a ñëw ci Adji Sarr est waxoon nañu Adji Sarr dafa dof waxal. te dafa ne bi muy doog a gis Adji Sarr la xam ne Adji Sarr mii wul du noonu. Mm-hmm. léegi lu tax mu toog ba dernière minute mu doog ñoo wax Adji Sarr normalul Adji Sarr bu dee dafa dof dafa ànd ak ñu bëri dofandoog ñoom. Mm-hmm. parce que bi muy dof dof lu am na ñu ko doon dimbale ci ndof gi. Mm-hmm. tey xoola ma wax la benn affaire deretu téegal dul mooy luppi boroom waxal Adji Sarr li mu doon togg noonu xoola dafa araw laax bu xam ni moom ah moo koy lekk moom dong. wallaay xoola laax bi mu nga xam ne aji saar laax na ko xoola moom du ko soow dafa dafa laax-laax boo xam ne moom amul soowam ba pare xoola soow moomu kenn du ko ko defaral xoola aja kii euh, ma mari mhm. léeg-léeg boo nekkee ci dara ay nit di ñëw di la jàppale naan la non xam nañ ni yow nangam nangam di la braqué ci ay affaire ak lu nekk nga am ko mhm. ba pare aji saar su fekkoon ne affaire bi day am dëgg xam nga fan nga koy xamee. Hmm. day toog ci lu day toog ci ay mbokkam mais Adji Sarr bi affaire bi amee toogul woon ci ay mbokkam ci mbokki jàmbur la dem xoola lépp histoire boo mën a am nekk nit te toogoo ci say mbokk loolu ngay xeex hmm. doo ci mës a gañe yow mais Adji bu toogoon ci ay mbokkam nëga ni sii dama kon damay tiit ci moom mais dafa dem toog ci ñoo xam ne ay wutukaayu buzz la ko ñooñu def ku ñëw rek wut buzz dem hmm. te xoola ma laaj la dara kan moo mës a encadré Adji Sarr koo xam ko xam ni ku ñu nawloo la ci dëkk bi koo xam rek ku xam ni dëkk bi nawloo nañ ko ku mës a encadré Adji Sarr kooku laa la laaj. wax ma ko. maître El Hadj non ah xanaa xam la maître mm-hmm. ma wax la dara tey man su doon man maay moom. Mm-hmm. Ah, euh, damay jël euh, Adji Sarr may ko sama doom. wala wala moom sax mu jël ko comme mu nekk soxnaam su ndaw xam nga tax. Mhm. parce que lépp li mu amoon ci personnalité aji saara ko lekk. maître El Hadj mhm. mille 2012 bu daan dox ci mbedd mi est-ce que gis nga nit ñi ni ñu ko daan kottee di ko di ko ñooxu mhm. tey muy dox ci mbedd kenn soxlaatu ko liir yi gën a ndaw soxlaatuñ ko du dëgg. kooku ban personnalité la am ana personnalité. mais jàppoon li li nekkul jeu boo xamante ni c'est pour divertir sénégalais yi moo tax ñu ñu tàlloo Adji Sarr tax sax Adji Sarr mais xam nga mm. tey li ñu nekk nii di ko mm. àtteeg. di mm. wax waxu Sonko ba ñu nekk ci affaire am. fàtte Adji Sarr. moo tax Adji Sarr di leen ko xoola man wax naa leen fii bu yàgg wóor na Rasulullah wax naa ko su feeling Dakar ne leen Adji Sarr doo leen ko ma sa fàtte saa boo leen toogee ba nga xam ne fàtte fàtte ngeen ko. dina def benn affaire boo xam ne di wax ci moom. Adji Sarr nañ dimbale ba Adji Sarr tey jii xoolal jigéen bu musaana mel ni Adji Sarr wala wala wala ku mu munti doon. Mm-hmm. xam nga lan moo daan tax ñuy fàttaliku jigéen est-ce que xam nga luy tax ñuy wax yaasin buubu. di ko fàttaliku di wax. Euh, kii naka euh, kii jaata. Alioune Sitoé Diatta di wax ay faawaad wele nangam nangam xam nga lu tax. ay nit la yoo xam ne. Mm-hmm. dañuy wax seen tur pour yow nga laajte ñooñu ñooy ñan ñu fàttali la seen jukko. Mm-hmm. pour nga roy ci. mais tey bu ñu la fàttalee Adji Sarr yow bu ñu la toogoon di la nettali Adji Sarr loo lan lañ lay wax. ah mooy première nit bu njëkk a taxaw. Mm. di jiiñ nit naan ko yaa xoola yaa ma def yaa ma laal mu naan la laaluma la. waxa rek. Mm-hmm. tey jii ku mës a def loolu da koy nëbb moom moo ko njëkk a def ci Sénégal fësal ko ba ñëpp bëgg koo def ci bopp nit ñëpp. Mm-hmm. parce que tey xoola loolu ku ko mës a def. ku ko mës a def ñëw di ko wax fan nga ko gis. amul waxa rek kon waxi Adji Sarr. ba pare koo xamante ne violence daf lay topp psychologiquement traumatisé la mais ku taxaw en plein de audience nga taxaw ne diw moo ma def nangam diw moo ma def nangam diw moo ma def nangam dafa nekk loo xamante ne daal euh, euh, jaaxal na nit ñi tey mu xëy ba ne dafay xaru taal li nga xamante ne moom mooy dëkkuwaayam. mu nekk loo xamante ne tamit defaat na équation sénégalais ndax dañuy jàpp ni à chaque fois moom Adji Sarr ci boppam moo ñu bëgg a coloniser en fait. waaw mais xam nga Adji Sarr bu ma ko doon conseillé xam nga lan laa koy wax. Mm-hmm. yaa ngi dégg xoola Adji Sarr euh, ay affaire am jeex na li mu doon solu solu na ko ba pare chaque tribunal mu solu di ko kocc xoola nit ñi dañ daan solo di dem ci xew yi mm-hmm. ñii di solo di dem ci tuur yi mm-hmm. ñii di solo di dem ci mariage aji saa bu soloo tribunal la jëm musibay sénégalais yi rek lay solo ci lañ koy maquiller mu sol affaire yi ñi ko doon maquiller ak di ko solal ñooñu anañu léegi xoolal ñun ñii bu ko kenn jàpp na dem wooyu ñooñu ñu jàpp ko xaru neexul de. ah ñi woo dama ne xanaa am la xoola moom day wax xaru mais xamul luy xaru koo mës gis mu xaru. Mm-hmm. bi mu demee ba ci biir bëgg na cee génn parce que dafa mitti. Ah, yaa ngi dégg mm-hmm. xamalala la. Adji Sarr moom ay affaire am vraiment bu bu fekkante ne tamit li Gabriel Kane wax dëgg la mais yóbbu leen ko faan ngeen tëj ko foofu. mais ay waxam moom vraiment dañ si dañ si pare quoi beneen wax lañ soxla. Mhm. mais waxu Adji Sarr moom. ke euh, euh, ke kenn kenn waxatu ko. <laughs> wax dëgg yàlla ñu jàll ci rek euh, Adji wax naa la fii ne la. Adji Sarr wax analyser naa ko bu yàgg ne la Adji Sarr xam nga nu mu mel. Mhm. mu ngi mel ni xale boo solal ba mu rafet mu day kuus. ku ko gis da koy bëgg a mais ku ko fob bu la affaire yi xëyñee nga sànni ñaata nit a ko fob sànni ko kal dafa fu ndool nii day dafa bëgg recruter waat ñeneen nit ñu ko ñëw for ku ko for xam demal for mais gis ci ci commentaire yi kenn apprécié wu ko ñëpp dañu wax na dee kon deewagul nangam nangam mu mel ni sénégalais yi doyal nañ sëkk ci Adji Sarr waaw mais am na ñu fi nekk am na pourtant Ousmane ko bële mhm. moom kenn bugg kenn buggul da dara waxu ko mais nan la Ousmane ko def ba sénégalais yi bëgg ko bëgguñu dara wooq ko moom nan la def ba sénégalais yi yéene ko dee. waxal rek yow nga ubbi problème boo xam ni ay fukki nit ak ñeent booba tey ñu ngi ci biir suuf. yow nga ñëwaat di bëgg a ubbiwaat beneen li mu doon ubbi nee ko jeex na li mu doon sañcee jeex na sañce yee jeex wala mu sañce toog si saalam. bu dee dafa bëgg a sànca dem tribunal xam naa dafa bëggoon dem Casamance <laughs> comme miin na tribunal yaa ngi dégg nee ko tribunal jeex na wax dëgg yàlla euh, nañ may jàmm. ñu nañ may jàmm. Fouta Tampi Fouta. Euh, nañ may jàmm ak ñaawaayam. Euh, ah Adji Sarr ñaawul de. kii moom Ousmane Sonko wala. kàlla Adji Sarr. Adji Sarr mi. ah, ah xanaa am la bu la ñëpp tegee bët nii. Hmm. yaa ngi dégg dangay ngay rafet. du dëgg xam nga taar dëgg mooy lan <laughs> ah? <laughs> mooy rafet jikko dëgg la loolu mooy taar mhm. mais xoola rafet rafetul lii rafet ci nit mhm. yaa ngi dégg ci jikko jalay doon te man lim ñu wan waxuma ne dafa bon de mais lim ñu wan nii xaw ma nag ndaxam denc na leneen mhm. lii moom baaxul rafetul kon moom rafetul foofu laa wax du dëgg ah waaw dangeen bi ah. mooy dàngin bi dégg ah bu dee du dàngin day lii muy def nii day niroog ji ko dàngin quoi. Ah, wax dëgg yàlla parce que toog di di taal sa bopp di jiiñ ay nit ak di sos ak di teg ak diw jox na ma lii buñ ko jëndalee téléphone sax gëmewu ko yaa ngi dégg ah, ah. saa na may nit ñi jàmm weer na ah. en tout cas yàq deru jigéen ñu bëri ñu jàll ci euh, Fouta Tampi euh, moom mi nga xamante nag def na démb ab live ginnaaw coow bi doxoon ci digganteem ak Nabou Dash ba Nabou Dash xas ko xamal ko ne da nga nekk APR da nekk biir APR te amoo fa liggéey amoo fa dara euh, tey jii nag moom Fouta Ndiaye Tampi dafa mel ni xas yooyu daf ko rek daal dugg ba tax mu daal di jënd ay cuuraay jumboori jënd ay parfum ne da koy jaay def live am waaye ci biir live bi ñoo seetlu ne ay patriote ñoo xamante ne ay Ousmane Sonko lañu ànd ñoo doon ko yónnee xaalis ñenn ñi na koo xamante may na ko 500 euros am ñi ko yónnee ko yónnee matériel léegi nag nee na na xamante ni moo di dem fa nga xamante ni moo di euh, Pastef. waa xam tey Fouta Tampi bu ñëwee Pastef lan la fay wut. ah jàppale Sonko. Hmm? jàppale Sonko. Ah. sama jigéen la de. waa xaaral ma wax la mm-hmm. xam bu dee xaalis lañ la jox. Mm-hmm. nga ne da dem dangay dem jàppale ji sonk Sonko ngay jàppale wala xaalis. xaalis. Hmm? Mm-hmm. tay lan moo tax mu ne day dem jàppale ju Sonko lan moo tax muy tagg waa Sonko yi ndax lan xaalis ba pare fi ñu la ko yónnee dafa fekkoon ngay wax leneen. Mm-hmm. nga changé ko fi nga toog tey jii ndax boo dem bu demee Pastef ci kan lay dem.